saba yow eh, eh, eh, dama ni ëxlu ëxlu ëxlu yow danga leen war di këjal yow li leen di raay dafa bëri trop ma këj amatul masla neel këj ñu rab rab bi wàcc amatul nangam taanu ndayamu masla man ëxlu dañu def benn groupe bu tudd clochard clochard ye ku clochewul aar bokkoo clocheel sa ndey fële yaa dama ñëwaat ma ni ma ni ma la lii laa la lii laa waxaat lii laaj ma loo wax. loo nee leen ma ndar loo wax. ndar loo wax. mais nag entre parenthèses Cheikh Bamba Dièye projet yi daw yëpp genre feer yi nekk si booru tali bi yëpp fi def. na naka la suñu maire bi dama. ka ca des sa des maire maire bi nga xamante ni moo sa des ki fi mujj falu xaw ma ndeyam joobu ko ku dëgg ndeyam la ku toj la ndeyam la ku d'accord ku d'accord nga yëkkati ñu ndeyam meen tasal la fal ndey gëmuñu ndeyam meen pourtant gars yi ñu ngi waaj a commencé wàññi sama micro ndax li ma wax maire bi micro bi bu wàccee rek ngeen xam ne du technique ay technicien yu aaya fi nekk mais dañ may wàcc pour ma bañ a wax Mansour Faye on a besoin d'un maire bi nga xamante tout Saint-Louisien kay xam ñuy saafonte di xam lan mooy suñu problème Mansour Faye rakku Mariam Faye te Marème Faye sax du si saram ndayam moom si boppam. du si jot ndayam. waayow waayow waayow. waa ah ah ah, ah ah ah ah ah ah wàcceel wàcceel wàcceel. du ma ko way. Eh, sinon ma eh. wàcc. sinon bàyyi naka dal bu fekkee man du yomb. Pape Sène Pape Masur Faye raku Mariam Faye Saint-Louis la ñuy toog di saaga te ku saaga Saint-Louis ñu tepp sa lëfal nday ana sa dëkku ma bangi moo tax ma bëgg ngeen ni day gëm dëkkam waay waa kër gaa ngi nii gëm seen dëkk Demba Demba Simon a ngi nii gëm tahun gëm Medina gëm fépp ya. jili baxtaan a ngi sama jarbaat bi kilifa kër gi ya. gëm Saalum comme c'est pas possible kon ñun duñu gëm ndar ya. ku gëmul ndar wàcceel sa loxo ku gëm ndar yëkkati ko. Eh, ku wayul nguur gi gaay dañ lay wàcce policiers yi samay gaañ lañ gendarme yi samay gaañ lañ jinne yi samay gaañ ni may saagaa seen nday sax ñoom seen salaire da siy yokk ngeen di duul di duul naan yaa duul fekk yéen a duul est-ce que ça va Saint-Louis dina war tane bay mbokk dugub bele soq ku ko sa lëfal ndañ. yee suñu musique kenn du ko waañ. consommé sénégalais dina war a tane bay mboq dugub bele soq war tame gerte diw saabu dege maafe gàlle doo soo mbi caagri cere sungu fëgga wóor mboroxe ndambe tegeney bernde fonde ñebbe kenn duñu merde suppu kanja domoda penda mbay ruy bisaab bi tax nge